Ah, door salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ki ngeen jàkkaar loolu nag mooy Alioune Seye mu war a bëri ak Mbaye Gouy Gui comme jëlee woon nañ Mbaye Gouy Gui mu wax nan la nan la a jëflante ak sawaay waay nag fekk dañ ko muy entraîné fii ex-CAF mu nekk fi nag ak ay frère am Moussa Eumeu seen tamit fi lay entraîné mu mel ni mbir yu bëri ñu ngi entraîné fii ci Diallo dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com wax ñu tamit nan la nar duggee ci combat boobu noonu ñu dugg ci waxtaan bi mbir maa ngi lay ziar. waaw dolli ziar wërëwër Lamine gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Babacar si yàlla ko yàlla yàlla yokk ay leeram ah di santaat sama sëriñ maam maam Malick si waaw bu sëñ Mansoor maa leen maa ngi koy siyaar bu wér a wér sama sëriñ sama xarit waaw di siyaaraat waa yëmbal yëpp maa leen di siyaar waaw maa ngi siyaar ñëpp daal maa ngi siyaar ñëpp di siyaar tamit sama sunu waa saal bi ku ci mel ni sunu coach Diallo maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax. comme ni ma ko waxee rek balaa ma ñëw sax ci adversaire bi damaa bëgg a xam ñaata combat am ñaata combat nga am. man bëri 17 euh, combats laa bëri. 17 combats waaw waaw. ñaata victoire. 12 victoire 5 défaites. 12 victoire 5 défaites. waaw nga Mbapat. <laughs> Mbapat. kay dama koo toj. foo toj ci Mbapat. Mbapat yëmbal benn baraak buun ba jàpp jàmm gën caaro yi fépp raatale naa ko. képp ko waaw. nga daan ci Mbapat mbër yi nga xamante ne ñu ngi benn arène ñu siiw. <laughs> waaw am na ci ay mbër yoo ay champion yoo ay ndaanaan yoo xam ne ñu ngi ci arène bi ku ci mel ni Siteu bëri nañu arène. ma daan ko mbapat euh, bëri nañu mbapat ma daan ko. non Siteu neen daanul mbapat de. Siteu moom sañul wax loolu moom moom moom waa jàmm gan sax ñu wax loolu daal max na ma ndax man euh, bugguma sax di ci di ci wax. bugguma sax di ci wax. munoo cee bañ a wax. li wax dafa grave parce que si te bërgi démb jël naa ko. Mhm. nee na bëri na mbapat ba bàyyi kenn mosu koo daan. waaye loolu kay xanaa sañu ko wàcc si sañu ko wàcc sëriñam sëñ Sidi si tam si tam man maa ko daan maa ko fekk buun daan ko jël ba amul benn werante waaw te jamono jooju doon doonoo waxoon euh, ku ko daan dañ lay may passeport nga tukki ndax kenn gëmu woon ni si kenn mën na ko daan waaw man maa ko fekk buun daan ko man ak moom. ma daan ko drapeau baa ngi sama kër. Ah. waaw su ma ñëwee sa kër. ma ma wan la ko. Ah. waaw drapeau ngeen doon bëre. 2006 lan bëre ma astafurlaa 2008 lan bëre man ak moom ma daan ko ay ñoom benn génération loolu woon mbapat mais xëy na nag suñu borom. man saakees ak moom sita moomu. waaw ah, yaa may dégg. kon yéen a nekkoon côté Diamaguène beeg Kër Massar beeg Boune bi. jamono jooju laa la bu doon daan rendi la kon ñoom ñëpp dee nañu ndax ñoom ñëpp rendi naa leen kon. Sa Thiès bëri ngeen. maa la mais bëri nañu. Hmm. Ah, bëri moom mu ne feebar ci lu mu wax. waaw uh-huh. ah, hmm. waaw. léegi arène ñu dugg ci arène ba. waaw ñu dugg ci arène. Uh-huh. dugg ci mooy yàlla euh, lépp lu mu def ci jàmm rek loolu moo gën ndax man ba ma ñëw arène sama tur jiitu na ma arène uh-huh. ñu ñëwandoo arène ngay dégg Siteu Sa Thiès mais tamit di ñaanal tamit euh, yàlla na yokk. yàlla na yokk ñoom ñoo ñëw. yàlla na yokk waaw yàlla na yokk. mu mel ni loolu dañ doon laaj rek ba xam def nga mbapat. Hmm. ba xam bëri nga ak mbër yoo xamante que keroog même ñun hmm. di wax ni yéen ñaar bëri ngeen. Hmm. mais loolu amul solo li am solo mooy sa diggante ak mbay guy gi. waaw da ngaa jël benn sadik benn këx boo xamante ne xàmmeewul janj ak joor. moom jàpp buddi rek la xam nga dugg ci moom. seetaan nga ko am na ko ay kàddu yu la yóbbante. waaw mbay guy gi maa ngi koy nuyu au moom it di ko wax champion la. damaa tudd mbay guy gi rek nga jënd galaas de. waaw moom champion la maa ngi koy nuyu au mais dafa bëri wax champion lu bari wax moom li muy moom li muy moom li mu diwoo xeeñu ko man mbay guy gi yow xam nga de bu doon làmb làmb rek du ma bëree ak moom. yaa ma ah, dégg mbay guy gi def ay dafa am lu ñu ban preuve la def mbay guy gi kan la daal. daaw daan na bébé bis mi de. ak kan. man ak ñim daan kay bari na. ak man daal xaw ma ñum daan. ak kan yow kay yaa ko wax. teel micro laaj ko ko. moom ku fi daan mbay gu yow koo fi daan. yow dafa am lu ma boole ak yow te xam a kañ nga koy comprendre la 30 ngay comprendre yow kan mooy Alioune junior tapet nga. mais gi ragal de. barki Serigne Babacar si tapet la. muy nga naan ma lan. gis nga ko li muy entraîné. oh sa waay ma yow ñëw nga fii gis nga li ñuy daj. waaw. dégg nga ma. waaw. waxaat wax waxaat du bëri wax. yaa may dégg mais man li ma war a jëflante mu man ak moom la 30 te ko jëflante moom na xam ni man man bàyyi ma ko sa xel. nee nag amoo doole. waaw merci beaucoup kenn amul doole yàlla rek am doole. doole bëre lañ. yàlla rek yàlla rek moo am doole. waaw doole yàlla doole mm. bëre lañ wax. mbay guy gi mënul bëree mënul xeex. mais am na doole. amul doole amul dara. dañ koo forcer champion bu nu la kolo kolo champion kolo kolo la. li ma booleeg moom du du ay lamb man xam naa li ma booleeg moom. lan moo la booleeg moom moom xam na moom xam na li ma booleeg moom. lan moo leen tamit xam na li ma booleeg moom. kon dañ laa fa xaalis bari moo tax nga jël ko. ba waaw kon kon jeex na sport business nañu wax. dégg nga mbay guy gi damay dama pour le 30 mars moo ñu boole ak moom man ak moom mais nekkuñu ay adversaire te di dina xam ne man ak moom bokkuñu du benn. barke alxuraan. nee na bu la bu la daanee te duma wu la bëggul victoire boobu de. mu ne. nee na su la daanee. Ah. te duma wu la bëggul victoire boobu du ko jee victoire am. yow est ngaa seetaan ko duma Alioune Sèye Junior. loolu laa a moo tax mu jaaxal. te dafa war am na ay moromam yu ko am na ñu ko fa dem wax mbay guy gi fi ma jaar jaaru fa man dama bëre coins waaw bëree ak ak ak ak ak bébé Motlo. Mm-hmm. bëree ak Brise de Mer bëree ak Cheikh Niang ah bëree ak ak Mbaye dégg nga bëree ak Batista. yaa may dégg mbay ju mbay mbay guy gi ñi ma ñi ma bëreel ñi ma daan daanu leen ñi ma bëreel bëri ñoom yaa may dégg bokkuñu sax ay adversaire yaa may dégg dama man xam naa yàlla baax na daal yàlla baax na mu ngi wax mu ngi wër fu ne di wax mu ngi wër fu ne di wax loo koy def boo ko jàppee. maako ko dàq bëre maa ko xeex yaa ma dégg doole jooj mi wax maa ko ëpp. yaakaar nga ne yaa bu doole mbay bi. waaw yow ñëw nga fii gis nga li liggéey. gis naa li ngeen di liggéey. waaw metti na waaye moom it jël naa ko. moom handicapé la tànkam baaxul. mbay gu gi handicapé la. li mu doon presse diis na de handicapé du mënul presse loolu. ban yegg ci bés bu ci yeggee Lamine nga xam ne jinne man dëmm. duma. ma ne bu ci yeggee nga xam ne jinne moom man bu jinne man dëmm. <laughs> loolu yéeme na te yow jinne nga. xamul sax li ma koy waajal. léegi nan ngeen nekkee ci salle bi fex fekk nañ la fi tamit yeneen champion nan ngeen nekkee ci waaw champion yi fi nekk ku ci mel ni sunu grand Eumeu Sène ay ñoom Loso sama yi ñoom ñëpp ay ñoom ci salle bi la nekk. Mhm. ay ñoom Jadli ñoom Eumeu Junior waaw gars yëpp daal ci salle bi la nekk. ci salle bi lañ nekk. waaw am na ñu ci am combat. waaw Eumeu Sène ak Modou waaw. 2014 bi ñu bi ñu bi bëree seen premier combat yaa ngi doon entraîné ak Sall. non non boobu ñëwaguma ci Sall. boobu ñëwagoo ci Sall waaye boobu xamoon nga Eumeu Sène. waaw euh, naagu moo ko xañoon. naagu est-ce que feeñ na ci biir bëre bi diggante Eumeu Sène ak Modou Lô. naag ah? seen bëre seen combat bu njëkk. waaw naagu feeñoon na ci. waaw ndax ci naka. ndax euh, Eumeu Sène boo xoolee avant muy bëre ak Modou Lô ñi mu bëreel ñi mu bëreeloon ñoo gënoon garaaw Modou Lô fuuf waaw ñu bëre 2009 Modou Lo daan ko waa ci ñu ngi koy ñaanalaat nag ci combat bi mu jëm Eumeu Sène suñu jantal grand la bokkuñu bokkuñu ikiri mais grand bu ma naw la grand grand bu ma respecté la tamit moom moom grand respecté na moom respecté ko xam na maay kan man tamit xam naa mooy kan loolu moo am solo man man ikiri waalo laa bokk ku ne xam na Aliou loolu leer na mais yéen bokk fu ngeen entraîné ay mu nekk jantal grand suñu grand la grand bu baax la grand boo xam ne day yëkkati alalam di ko def si ñun di ko may baax mënul weesu loolu ñu ngi koy ñaan ci combat bi mu jëm yàlla na daan Modou Lo jëlam amul benn werante. mu daan mer de. oh sa waay bu dee làmb rek bu dee làmb rek kay dëgg Eumeu Sène moomul Modou Lo fuuf. fu ko foo teg loolu Alioune Sèye. Eumeu Sène waaw fu ma ko teg mooy xoolal Eumeu Sène ba mu jógee ci Modou Lo ba tey combat combat yi mu bëre. ah bi mu jógee ci Modou ba léegi deux combat la bëre de. waaw waaw mais mais xoolal rek <laughs> xoolal rek. ñu ngi koy ñaanal daal yàlla yàlla defal ko ndam. Garga Mbossé musaa Ndoye. Garga Mbossé. Moussa Ndoye mii. Ah, ah, ah, garga Mbossé Moussa Ndoye. <laughs> waaw làmb la. làmb la damay ñaanal sama grand Ndoye kon ko ñu bokk fi ñuy entraîné yàlla defal ko ndam. Moussa de daa mer daa diis. waaw. daal garga garga laa wax dafa ñu ngi ñu ngi kon ko daal ñoo fii lay entraîné musaa Ndoye fii maa ngi ñaanal Moussa Ndoye yàlla defal ko ndam. kon ni may ñaanalee sama combat bi ma jëm noonu laa koy ñaanalee si combat bi mu jëm yàlla ko yàlla defal ndam. Mhm. waaw mais li muy liggéey yaakaar nga ni mën naa liggéey ba am doole comme Garga. wala bopp doole Garga. kan Moussa. yow ko xam-xam ne liggéey <laughs> liggéey lu ko nit ñi xamee ma ko gisee techniquement di tegu ay coono yu metti waaw te combat li combat bi li ci des bëri na su boobaa bu ñëwee di nga xam ku liggéey ak ak ku liggéeyul. waxuma ci cadre liggéey bi ñoom ñaar seen bëre. ñoom ñaar seen bëre waaw ndax euh, euh, combat la daal combat la daal combat la. Hmm. combat la boo xoolee boo ko xoolee combat mi yi yu mujj yi nga xam ni ndaanaan la daal. ndaanaan la daal waaw. léegi sa combat Lac de ak Boy Niang ak Boy Niang. yaa ngi nee da ngeen. yaa wax doog wax boo xam ne nag. moo da ngeen doon daw xeeñ ba dugg ci foos. yow xam nga ni Lamine làmb bu dee dëgg rek Boy Niang warul bëre ak la de Guiers bu dee làmb Alioune Seye 2 la waroon bëreel. yow booy ah. waaw ah. daal nag vraiment nag da ngaa bëgg ñu arrêté émission bi. waa kooku ñëw seen ruq boobu. diggante yëmbal ak géej géejawaay tas ko seen écurie. mani la Boy Niang ñi mu daan yëmbal dëggal. ñi mu daan ñi mu daan géejawaay tolluñu fii Alioune Seye 2 yaa may dégg. c'est que làmb neex di wax rek. làmb moo waxul dëgg. mais booy Niang ñi mu daan du Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 Boy Niang ñi mu daan ñëpp a ah, ah, ah, Alioune Seye 2 yamu fii soo bëggee dégg dëgg. sept personnes la fa daan xaw ma neuf. na na na fa daan quatorze personnes mais daanagul ku nekk Ikiri Waalo. mais benn la géejewaay la rek. waaw géejewaay la mais daanagul ku nekk Ikiri Waalo dëgg la waay la. waaye dugg na fa. waaw mais mais mu ngi doog a dugg Ikiri Waalo. dugg na fa nag. waaw mu ngi doo ko dugg Ikiri Waalo te fii fii lay yem. yaakaar nga ko. dem dem na Japon de. ma ni la na dem Siin la de guerre de mu ngi fii demul fenn di waaj te si kattanu suñu borom di le jour yi di ngeen bu fi yàlla bàyyee ak jàmm ak salaam di ngeen gis estaat bu ko la de guerre daanee ba pare ñu doog a wax man ak yow. mais nag dafa wax ne day duma Boy Niang est-ce que duma Boy Niang yomb na est-ce que mbër boo da nga ko andi sax ni ko demal duma Boy Niang. la de guerre la ma ne la la de guerre làmb benn defet rek am. roi des arènes rek ko daan ama Sène rek ko daan la dëgg. ak Modou Lo man Modou Lo fa la ko daane. am daanaka par avertissement. waaye yow waaye waaye bàyyi ñu waaye nga naan par avertissement la deger ñëw ci làmb ji ku nekk arbitre yeeg ñëpp waa CNG yëpp ku nekk di ko jox ay avertissement te bëreegul. te bëreegul léegi loo xam mbay guy gi. li ma koy wax daal mooy li ma koy wax daal mooy mbay wax ji bu dee nga takk nga ay rajo torop. te mënoo ñëw ma invité leen yéen ñaar seen affiche. ma ni la su foo ko bëggee moom bu ko nangoo rek man nangu naa ko. foo ko doo ko may dara. déggu lu la wax man sequma ak moom ay wax yaa may dégg ndax moom ni mu mel man meluma noonu. wax mbaralal mbaralal mbaralal. daa wóorul xam lu xam xam la laa ko tuddee ba comment jeex mbay seku. mbay mbay seku. daa yëg boppam rek. dina dina tëj laa meñam de. Hmm. billaay wallaay. aywa ko teg. teg naa ko fu ko barke alxuraan. fan nga kan ngay woo ak pour looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy damay woo waa yëmbal yëpp laay woo di woo sama xarit sama sëriñ sëriñ Cheikh Gala Thiaw laay maa ngi koy woo ci bi ndax combat moom laa ko tuddee di woo Modou Mbène Diop di woo Ndiol Laay di woo Aline Sall sama xarit maire Guédiawaye waaw di ci woo ñëpp daal di woo waa yëmbal waa carte basse fir buun benn baraak ñëpp maa leen woo ci ci ci combat di leen wax seen seen rak seen xarit seen doom soxla na combat bi loolu moom ak mbay Gouye Gui la 30 mars. waaw di leen wax ngeen saay bu leen jullee ngeen ñaan di gërëm nag di ñaan di woo woo sama waa dëkk waa Tiwaawan waa Kër Matar fa dëkk maa leen di woo askanu Njaay yëpp maa leen di woo tukuloo ñëpp maa leen woo ci combat di leen ngeen ñaanal seen seen xarit mu ngi jëm ci bis bu la 30 ngeen ñaanal ko yàlla defal ko ndam ci combat moom ak Mbaye Ngom. waaw maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ma sama diggante ak mbay guy ko mbay ngom yàlla defal ma ndam ci ci kattanam waaw maa ngi woo ñëpp daal maa ngi woo ñëpp maa ngi woo ñëpp.